am na programme boo xamante ne nguur gi def ko tëral muy programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence paquet mu tëral ko diggante 2013 ba 2030 programme boobu état moo ko financé à 80 pour cent li ko tax a jóg mooy ñu am école bu am qualité équité ak égalité budget bi nga xamante ne dañ ko jagleel depuis 2012 ministère de l'éducation nationale dafa triplé 328 milliards 4 millions 341 mille francs CFA 797 francs CFA ci loolu mu am ay projet yi nga xamante ne daal dinañ ko ficelé mu ngi en cours de réalisation